waaw ay wax la ñu mën lay wax ak nii. na mu ngeen ma mais maa leen raw. yéen min sëriñ yéen min sëriñ de retour. saa. ñu yaatal ndax li war a développé man xam naa ne tëju ci xewu jamono. mais saa tuuba non da ngeen gis man jam rek moo tax ma ñëw. dëgg la waaw mais mais man. mais daa gën gis ne da ngeen a riir. am lu ma lay laaj ginnaaw mu la nuyoo. ah di nuyu gars yi parce que la fekk gars yi di mu doon ta abu ak naar mais question bi mooy ngeen jëm ci combat bu toll nii fois ñuy dégg naan Modou ak diw ah comme ñoom niñ ko waxe léegi parce que damay tombé seen ay wax ñu naan Moodu Sa Touba wala ay Moodu Papi Saaru wax yooyu ngeen koy dégg te jëm ci combat boo xam ne leer na ki ngeen di bëreel dafa décidé ndax bi ko Moodu ne maa la gën a xotte ko dana ko man xotte ko ma damaa yàqu ah! loolu noonu loolu dina bëgg a dégg jëm ci combat coow yu mel noonu di déclassé ci seen côté est-ce baax na waaw xam nga booy bëreeg ñoo xam ne ay coowkat lañ. waaw da nga leen di tojal ci coow. waaw <laughs> xaw ndax dégg ngeen wala dégg. dégg booy nga ne booy bëreeg ñoo xam ne lañ da nga leen di tojal ci ok tax ñu leen ci li bala ñu ah moo tax ngeen di coow seen biir yéen. bala ngaa yegg ca bis ba. bala ngeen bis ba ngeen ak mais est-ce que ñi ngeen di bëreel euh, maanaam am na ñi nga xam ne Euh, Mourante damay deg ay nit yo xamne adversaire bi joxuñu ko ciir bi war pour man ci ni ñuy waxe parce que dañ naan Siteu man da daan mudu nangami combat man tam ci mudu dara yow lolu gëm nga ko yow. waaw xam nga làmb lépp jàllee. waaw gannaaw yalla yonent bi. waaw mbeur moom fi kenn mënu kenn ko yalla dimbalé mo fi waaw loolu daam na. sita waaw amul ku ta daan ci aduna waaw. waaye dama am gëm-gëm ni. waaw la 24. incha allah mënuñoo daal. la 24 mënu leen a daan. waaw ci la maanaam daan da leen a doole. daf leen a bëre. Hmm. wala daf leen dul gën a bés. waaw wax dëgg soog bëre Babacar dëgg la de. yéen waaw ma d'accord maa ngi ñëw ci question boobu laa ñëw yéen ñi yor waaw. ay yéel yu gudd rek leen ëppale <laughs> maanaam. mais est-ce que ñi leen bi. waaw ñun moom yombaluñ dara combat bu Modou Moussa bëre bii laa ci gën a respecté. ah ndax lan ndax waaw. parce que gën ngeen maa gis xam ngeen yii daaw leen gis ma di ko def. waaw fii laa gis problème deux mois kenn tegu ma kenn tegu la bët. te jàmm nga la nekkoon gàtt saaw toog fa. lu tax la lu bi. jàmm gën parce que dañoo nekk ci combat boo xam ne waaw coow li bëri na. waaw wax ji bëri na. waaw te ñi ñuy bëreel dañoo mën bis. dëgg la de ak ñu ngi sóor loolu si moom. te ñuy xaar li ñuy xaar ci ñun. dafa bari dëgg la te bëri na ñu ñu jënd di bëgg a seen bopp. waaw waaye danañ suulu bu am na ñu bëgg a génn génn. ñu di déplacé wu ngir bëgg ko wane seen bopp di wane na ñoom la te du ñoom. ci combat bi am na sëriñ si transhumé de mercato bi. am na ñu jënd de nee naa la nee naa la ay courtier lañ ñooñu ci yéen lañ nekkoon wala fu ñu nekkoon. gisuma sëriñ bu nekkoon ci ñun. sëriñ bu nekkoon fii Mourou. du déplacé wu di dem ci Cité gisuma ko. ñu bari ñu ne Modou. ngeen àndaloon 28 juillet 2019 bi ngeen di jël Korante ci. waaw waaw. ñi nga doon àndal daaw àndatoog ñoom rek. am na ko war ci combat bi. mënul mënul ànd ak ñëpp mais est-ce que doole. xam nga njool Moodu am nay jafe-jafe ci njool ñaari yoon ñu ko sut muy Balla Gaye ak Bomba ma leeral la foofu bul continuer ma leeral la foofu bul continuer demal maa mën maa ëpp doole ah eh? Ya man Siteu maa mën maa ëpp doole maa dàq bëri maa dàq xeex maa ëpp fit maa ëpp sañ-sañ mais bii Saya yéen est-ce que saya, la sax fecc leen daal may nañ leen fecc tuus ma Siteu Sa Touba li ngay wax nii Sa Touba ci lan nga ko teg nii Siteu nee confiance bi bëri na de jàmbaar ci takk jamay kee bi laa ñëw bu ngeen ma soxlaa ñuy développé ah. fekk leen ma suma kenn